du junni taaru junni ya màkk yi bu ko jox màkk la semence bi ñoom ñëpp la wala semence ñaar fukk xëy na ci doote laa mos a leeral ci doomu ci daje xaar yàlla ñaar xaar yàlla ci daje dama yàlla ñaar la war yàlla ko tam dañ koy teg yàlla ko ak leen jàmm ko ci ko xaar yàlla ko ko ci ko wax ci ñu ko ñaar ko barke ñu islam ñu war a dal ci xob ñu mo won ci yàlla yàlla ko ñu salaam alaykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم آمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة الشهداء الذين ما ذهب المعتدي والتدين ولم تسمع الطوارئ بسم الله استغفر الله وجدد الصدور الرحمن كراهية قيام بالله من ابتجار الياء الرحيم كراهية وجدد دار kuréel yi lay yaa kooku lu ko waxal wàcc na ba nga xamee ne mbooloo ci jinne yi dañoo déglu jàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka mu daal yoon ci faaw na ah way faram maa yële kana faram ñu yor jinne ba nga xamee ne dégg nañu alquran nag ñu ñëw yónni ndaw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na ñëw wax ñu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam génn xam nga Abdullah ibn Mas'ud ba ca Maxla mu rëddal ko rëdd ne ko toogal ci biir rëdd yi boo ko génnee daal te itam yàlla ngay gisee teg man yonent dem nag jinne yi di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba nga xam ne téerab bi mu ne xam ne di ki ci saare mat nañ juróom-ñaar fukk ak junne ñu gis yonent bi la yonent jàng fi ñëw alxuraan ñoom ñëpp ñu jébbalu jaarante ak moom moom ñoom guddi ga lépp ba jullee ñoom suba yonent sallallahu alayhi wa sallam soog leen a tàggu ñu ne ko dañoo bëgg nga may ñu ndawat mi doomu aadama ñu naan la ndawat ñu ne mu yàpp de yonent ne ñaan na yàlla lépp lu doomu aadama yi lekk ci yàpp ba yaxee def ca yàlla delloowaat yàpp woo ba mel na meloon muy seen yàpp moo tax bi mu nekk nii ñu aaye yàq ku ko sobeen de ndax bu doomu aadama yi lekkee ba sànni yaxee yàlla fay delloowaat yàpp woo ba mel na meloon loolu moo yàpp ci nii seen yafari daama yi itam ndumbaañani daama yi nit yi waaw moom la yàlla soppi ab ab yafal mooy yafali yi daama yi jinne yi de jinne nag ay mbindeef la yàlla bind amuñ jëmm yu kay ñu ñu naka doom aadama yi jëmm yi safara lañ waaw yoo xam ne fóore yi ma seen yëpp daje nañ ci seen xam ak mbooleem ñi nga xam ne gëm nañ yonente yi am nañu ne di am ak jinne nag ndax li nga xam ne kenn gisu leen waaye alxuraan saxal na ko moo tax mu àq gën a yëpp daje nañ ci am ak jinne yi jinne nag ay xeet lañ am na ci ñoo xam ne ñu baax lañ am na ci ñoo xam ne ñu bon lañ am na ci ñoo xam ne ñu tedd lañ ñu bare am na ci ñoo xam ne ñu suuf lañ ñu saay saay yi def yu bon def jinne yooyu nag ba nga xam ne dégg nañ jàng alxuraan ca naka la ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu nag di waat jinne yi de nag balaa di xasee ci biir saare moom la buur di wax pour waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu naan nit ñi ne booy ya woyof na ila ya jëm ci man am na loo naka luñ di dem bit ci sama génn na samay jàng naka mbooloo mi nag jinne si ci jinne yi yàlla digal na ma ne naa leen xamal ne mbooloo ci jinne yi déglu nañ jàng alxuraan ba muy julli tuur ca maxla loolu la borom jaawa dëggoom dafa rek foofu déglu bu njëkk ga mooy ba nga xamee ne iblis xelal na saytaan yi nañ déglu lu xew ci suuf waaw ba tax ñu aaye asamaan benn saytaan yi wala suñu dem asamaan bañ ko fekkee jaww ji ubbay bu mu jàng ñu ko saawa dellu na waaw wax ko nag mu ne loolu la tax gannaaw la nag jàngi ñaareel yi mooy bi nga xamee man neexoon nañ ko mu dem ca max la waa dem ba ma fi di leen ñoom suba de di déglu bu njëkk ba moo waral déglu ñaareel gi ñaar yoon la rek bu njëkk ba mooy may sabab naa rek gën a faral leen si ni waaw ba xaaral tay wax ñoom jinne yi ña seen nit ña bañ delloo innaa naka nun sameena dégg nañu qur'aan alquran ajaba di di borom kéem tànde ñu ne ñun de dégg nañu alquran yoo xam ne ñu ne mun a fasaaga baaxal ya fasaa ak maana yu bëri yam lamboo ak soo faddi nañ ca nekk dégg nañ téere boo xam ne mosu ñëw dégg ci àdduna noonu rek yaa ngi dal mu jub ne dara fi jëm ci njub te téere boobu dafay wax rek jëm ci njub te njub mooy gëm yàlla ba amoon naa gëm nañu bi ci moom ñun nag bañ déggee téere boobu ñun gëm nañ de wala nu sirka bokkaale sunu gannaaw tey bi rabbinaa borom sunu aaran kenn rek ñun gannaaw tey dootuñ sàkkal yàlla bokkaale ndax alxuraan jooju xame nañ ci ne yàlla amul bokkaale de wa inna woo naka luy mbiram ngit taala kàll na jaddu rabbinaa màggat borom sunu ci bokkaale rek yàlla màgg na ba ëpp na muy am bokkaale rek mataxa ba jàpp mu faay ba tam jalo wala wala du jaayeen doom yàlla amul jalo amul doom waaw loolu yomb na ci moom melaw loolu melaw ku sos la def way na woon naka liñ jural bit kaana nekkoon na yàqulu di wax te fii huna aji réew du alalaay waral yàlla sax sax wax ji aji jéggi daay ci nar rek ndekete hoo duñ doom yi nit ñi daa wax di sakkal yàlla bokkaale nar la yu jéggi daay wax way na naa naka nun war nan naa jot roonunu am naka mbiram mbir lan sax wala waxti lin su nit woon jinne jinne alla yoo yàlla ko ci la lay naaw ñun nag bu njëkk defa woon nañu ne képp ku wax wax xaskan ko yàlla rek wax nga dëgg ndax defa woon nañu ne kan sañ nga kan waral yàlla de naka teewoo suñ su fa aaw yi dañ doon san way na woo naka lañ mbiram mbir kaan na ko na di jaalam góor mais lin si ci nit yow wasona di muslu jëri jaayen ci góor me dini ci jinne yi rek te bu jëkk nit ñi dañ daa muslu ci jinne yi moo tax jinne yi gaw bu jëkk yaaram dañ daa def buñ daa tuti ba digg guddi jot buñ bëggee fanaanal ñu ne amosu bi sey di alal makaani min sharri sufaaya nañu di muslu ci barke fa nga xas ko kum ñu ne mu musal ñu ci ay dofam ba nga xamee ne daanañ wax loolu bu jëkk la jinne yi loolu taxoon ñoom itam ñu daw xam ne nit ñi dañ leen a ragal pour mu sax ci ñoom ak di leen yaakaar ba saa doon dañ doon leen raaxal ak daw loolu sax nag ñoom ñu doolee daw de ñun ñooy fa ngi jinne yi rek ñooy fa ngi nit ñi boole ci. gannaaw loolu nag maam yi ma am tamit ci Quraysh moo tukki waaw waaw dañu ne jinne joo xam ne ñu baax la mu ne ko moo xam ne lu gën li ngeen di wax ngeen di ko musloo bu leen waxatee bu leen musloo di ci sangab jinne yi. dina wax bismillah allahumma su ngeen waxee bismillah allahumma rek yàlla dana leen musal ci yëpp aay rek ñu ngi wax bismillah allahumma loolu taxoon Quraysh daa wax bismillah allahumma ba biir lan si ñëwee indi bismillah rahmaani rahiim ñoom ñu bañ a bismillah allahumma rek suñu maam yi daa wax ñun moom la ñu wax rek waaye na mun naka ñoom wanoo jot woon nañ ñoom jinne yi kama wanantum la fi jël jot yéen nit jinne yi jot woon nañ li nga xam ne moom lañ nit ñi jot woon nit ñi dox yi am na gëm bi leen bindal yàlla wala daaw dëkk bi yàlla aaraan kenn gannaaw ak yàlla nit ñi nga xam ne yéen bëri dañoo defee ne ku dee lu yekki jinne yi loolu lañ jàppoon de lu jiitoo alquran way naa naka nun la mas naa sàkku nanu sama laarak asamaan oo jot naa tan fekk ko mu dee ak ci fa def ko arafan ci way wax ci malaayka te di den yi di way dëgër aussi banaat yi biddiw de yi di way lakk rek ñun daan jam asamaan di déglu ji ñu dee ñu ci kaw asamaan waaye léegi nag aaya lañ ci ndigal aaya lañ ñu asamaan dama def ñoo jege asamaan suñ ko bëggee jege rek malaaka yi dàq ñu ak ay biddi yoo xam ne dañuy lakk def wari naa nag kon su naa nekk wax nañu jëkk yoon yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ma xool bu jëkk ñu naa ci asamaan ma xaale la ak jotaay li sami ngi déglu bu jëkk dina ñu dañ daa dem ba ca asamaan ñuy sàcc dégg de ba ma ne salee ku jëm na mu daal léegi yaa jin moo sàcc lawa ñu am ko jaaban biddiw rafaban bu dee aji lakk ko de léegi nag ku bëgg a déglu asamaan rek biddiw na kuy yi lakk ko de te dina yi dañoo nooy mel ni ngëndal waaw moo tax boo xamee ni biddiw ba dal na rek dafay ni lakk ba daal bu ko defee way naa naka nun laa nadri xamu asharun ndax xay kuuri da nam yox na ko bi man ci laf ja nekk ci suuf am araada am na mën a yéen ci ñoom rabbum borom seen rafa dana am jib xam ne ñun yàlla nam ci suuf ndax lu baax la na moom waaw am awaay la nam de loolu mooy ba ñuy tax ñu aaya asamaan sax gisaguñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de way naa naka nun mi naa aji naka lañ ci doon saali woon way yiw am na ci ñun ñoo xam ne yiw nañ gannaaw buñ déggee alquran wa mi naa aji naka la ci ñun doona saali ki mbir mu ñooña am na ci ñun itam ñoo xam ne yiwuñ jinne am na roor yu tedd yiw yiw teey waaw yoo xam ne yiw bëgg yiw lañ waaw yu gore itam am na itam safaan ba de ku naa nekk na noonu mu'jiza rawatina laa la si dara ci dugub de wala mu'jiza ba pare suñu taxawoon ci daw de ñun nag xamoon nañu que ne mënuñoo raw yàlla ci suuf te mënuñoo daw ba rek waaw ba baraw ba rek way naa naka ñun damaa xam ne naa dañu dégg alquran amoon naa gëm nañu bii ci moom de ñun nag bañ dégg alquran ñun gëm nañu yàlla de comme ñoo ko gëm nañu garab yi ci boromam balaa xaw ma ragal ci moom baaxul ak wàññeeku ci ñëwam wala xam bi jaage na dooleeku ci ñaaw demam de koo xam ne gëm na yàlla waaw yàlla du wàññi dara ci ñëwam du yokk dara itam ci ñaaw demam de dana ko fay fay bu maandu wa innaa naka min naa ji naka la ci ñun amul ci noonu way jëbbulu wa min naa ji naka la ci ñun aw xaatu dana way jàng ñu wet ñu weti am na ci ñun waaw ñu jub waaw gëm yàlla am na ci ñun ñoo xam ne dañoo jàng rek ñoo tax ñu weti yàlla wa ma aslama ñu jébbalu na mu muuraay dañoo la gaay saxaaraw jublu nañu war a fa gën a am jublu ñu la xam ne jublu jébbalu nañu waaw gëm gëm yàlla ak yonentam nekk ci diinal islam ñooñu dañuy nappale la ñu war a jub ñu xaw ko. wa amal xaasitoon laa way jàng ña fa kaaru nekk nañu xaw ko doon di mattali jaanama ñaan jaanama rek ñu la xam ne jàng nañu ba weddi yàlla nag fàkkal ko bokkaale ñooñu ma xam safara lañ rek waaw am na tamit dañ nit lan saxaamu doon te juboon nañu ñoom nit ñi ala tariqati ci diine lislaam laa xaymaam kon ren man la leen maanaam la rabatan mu di aji bay di na si noonu ngi nanu nag leen bii ci moom de su fekkoon ni nit ñi bokk nañ jub aw ci diine lislaam na ko yàlla bëggee yàlla dana leen nandal ndox mu bari te ndox mu bari moom dana tax itam ñu am alal ci bay yoo xam ne yàlla dana leen gën a tuur gudd na ndox ndax fu ndox nekk rek alal nekk fa waaw yu bëri itam fitna daal di baax di laaj fële moo tax de mu ne suñu duggoon yàlla dana leen naan ndox ndox waaw mooy taw bi wërsëg su ndox bëree wërsëg yu bëri su wërsëg yu bëree rek waaw nit ñi daal di bëri gaw fitna daal di taw di seen diggante rek fitna jooju rek mooy boo xam ne jub na sant yàlla joxe xaq yi xaq yi xamal jamaam kooka aw na yoonu njubbe koo xam ne beew na reyloo ko waaw kooku itam waaw aw na yoonu texe àddina nag nga xam ne ci zaaya bu nit ñi juboon ci yoon yàlla nandal leen ndox mu bari ngir nattu leen naka la ci baax yi itam de su fekkee ni nit ñi jub nañ ci sariyaatu dal di toogu yoonu pare xaru daal di àgg ci Afrika rek ngir yàlla lëkk leen ba am dañu sant am duñu sant de laay ji lamboo na sariyaatu ak tariqatu ak haqiqatu. waman yoore ku dëdd na moon dikri rabbi woy alquran boromam la suufu nu xase ko asaabam dugal saa ba mu di aji siise koo xam ne ne dëdd na alquran gi bañ koo gëm yàlla dana ko bugal bugal moo xam ne mu kii fee doon de mooy safara wa amal masaajida naka jàkka billaahi aji naka la ñeel yàlla de ba tey jàkka ñeel na yàlla de mooy bara yiñ tabax ngir julli bara tanoo bu leen jaamu maa la yàlla nday yàlla aaran kenn de soo nag bu leen dem ci jàkka ba noppi di jaamu ku mooy yàlla ni ki yahut def ak nasaara suñ duggee ci seen xel yi daal seen béy amoo di jaam ku dul yàlla ba noppi ba xam ne jàkka lañ ko tuddee te jàkka yàlla la ñu ñaar loolu warul de suuf lépp kay yàlla la ñu ñaar amul ci lu ñaarul yàlla su ne jàkka yi yàlla la ñu ñaar loolu laa ko traçal rek maanaam jàkka yi ñoo gën a seetlu ci pàcc suuf yi naka jàkka ji ca Makka mu tuddee ko nii comme fa baytu laay moo gën a foor ci mboolem jàkka yi gannaawam jàkka Madina gannaawam Baytu Maqdis gannaawam jumaa yi gannaawam jàkka yi gën a jàkka ju nekk nag néegam yàlla la buñ ca def dara lu mooy jaamu yàlla ak lu méngoog jaamu yàlla waaye buñ fa buñ ko def mu di ay waxtaanukaay ak i xulóorukaay ak i bara ñu bocc ay gannaay loolu yëpp nañ ñoŋal jàkka ci yooyu jagle ko rek jaamu yàlla waxtaan ci jàkka dana mabba jaamu yàlla ñeneen fukki at jàkka moom boo jàkka fee du bul soxla loolu mooy jaamu yàlla jullit si kaw foo dee nangu nañu jàngale ci xam-xam naka ci xeet gi daje ci njëriñ benn ba léegi lu mooy loolu nag waxe àddina boo ko bëggee wax rek jéemal jàkka ja de ndax néegam yàlla la buñ fa def dara lu méngoo ak topp yàlla julli ak si kaw ak lu méngoo loolu jàkka yàlla la ñaan nag daqoon te wutal jàkka ji ne am na ku koy di ko ñoŋal di ko xaar de yonent sallallahu alayhi wa sallam dana masjid yi waaye jàkka jamu laafal ko boppam de ba muy def kurtu ca Madina mais def na dayo ba masjidu bani Quraysin laaf jàkka jamu jëm ci ña ko moom de moo tax am amal masaajida lillaahi daqoon fi wutal jàkka ji ne tamit am na ku ko moom ko am ne moo ko xeeyoo lépp luñ ca war a def te jaadu moo koy bañ wa innahu naka lañ ci dem bit lamma qaama ba taxawee Abdoulaye jaamu yàlla la fi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla woowu di jaamu ko ca nax la kaanu jege nañu yàqu di nekk li bëral di way tegalawaare ci kawam de ba nga xam ne yonent taxaw na ca nax la di jàng alxuraan bi jinne ñëw di jaayante juróom-ñaar fukki jinne ci jinne ñoo wàcc di tegaloo di tegaloo di tegaloo di tegaloo ba jege asamaan ñoom ñëpp Abdoulaye ibn Mas'ud ci rëggaloon ne ko boo génnee rëdd yi daal boo ko gisatee pencam yàlla la buñ déggee jiif jiifi jinne yi te yonent fàddu ko mu tiit de ne dafay dem mu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu gannaaw la mu fàttaliku nag la ko yonent waxoon mu def ca rëdd ba mu ko rëddaloon ba yonent dem ci mu ne ko jiitoo naa la aw naa laa mucc yonent ne ko soo génn moom rëdd ba dootoo ko gis ci àdduna rek pencam yàlla rek nga gisati rëdd boobu mu ko rëddaloon ci lañ ñëw ci lu mu tëddi ko bay def di seen waaw atum yooyu te ña ko yàlla xamal comme xam si vraiment ni yàlla waaw ci ko yàlla xamal da nga yelloo ko waaye saatam doxee wëlisoom balaa ñu la koo nangul ba nga xam ne da ngaa yiw ragal yàlla rek bu ragal yàlla nag ku xaatu mu gis ñaane yàlla nangul ko rek xaala wax yonent ba sallallahu alayhi wa sallam jëkkam ko yëbër ya inama adama naka dana ma jaamu rabbi borom sama wala bisu bokkale ci moom bii ci moom aadam kenn yonent loolu la wax ne maa ngi yow jaamu sama borom rek te du ma ko fàttal bokkale pour waxal in nii naka man laa am di ku mu malaatu ñeeleem borom jënet lool wala rasalam du njaayeen bi jën njëriñ de mënu ma yéen a jëñal lool mënu ma yéen a bi jën njëriñ lu may nu yàlla soox pour waxal in nii naka man dañuy jiiral nii musal ci moom la laay ci mbugalam yàlla aadam kenn mënuma leen a jañal lool mënuma leen a bijjal jañ sëriñ bu mag bi la lool te man kenn mënuma am musal ci mbugalam yàlla su ma ko mayoon kenn mënuma caa musal man ci sama bopp yonent bi waral ajila fekk ci moom min duni ku dul moom mu taaroon tàppuwaay rek bu ma mayee sama borom aw ma kenn bu may laqoo ba mucc ci mbugalam ilaanu bi nekk balaa am ak jotoon dina laay bu bëgg fee rawatina saa laa ak yonentam man li ma nekk daal mooy jaamu yàlla laa muy joxoon yonent ma war koo jotoon rek maa ngi koy jotoon. wa man ya'siku mooy nangu laa yàlla war a soxla ak yonentam di wéetal ko. te inna loolu naka ñaan naka laara jaanama soxla jaanama rek képp ku mooy yàlla te bakkal ko bokkaale maa fi nekk boobu du mooy rek xam ca mooy bay génn waaw wéetal wéetal ak yàlla nga dem bakkal ko bokkaale. wala nga weddi yàlla am rek wala nga weddi yonent kooku safaroo jaanama rek moo ko ñëwaat rek amaa mooy yàlla rek kabaay bi kooku du taxee yow jaanama rek lu mooy faa mu asasi rek ñoom danañ ko mooy yàlla yow na safara rek te génn na ci diine xaalis dina nit mu njuure génn te a di jaje aljana ako te a jawale safara awalam dakkate ataay saaraayo ba def ci soñu maa yowma doon la def na def leen ko ci mbugal dafa yàlla mën a xam ne ñoo xam man kan axaahu moo gën a doon di naan ren jii ak di bële waa xam nga gën a néew ànd leen ci lim de bu fekkee yàlla ñoom ñu bëri di fuukale mbooloo mu bëree doole bu keroog dañu xam waaw kan a am doole ak kan a bëri waa ay ay soldaat ak ñoom la. bu la ko mayee la bu la xamee ñoom ñu gën a xam ak xëy bu ma ak bu la ma ko wane wala dama doon doon tëjee am na ñoo xam ne dañu doon doon ko rajo doon sama am na ñu ak doole. man nag xaw ma tënk naa la xaw ma nit yi ndax ñu doon am yàlla taxawal ko dig boo xam ne xaw ma ko ndax kooku xaw ma la boo xam ne kenn xamu ko mooy yàlla rek عالم الغيب يعلم ما يلقى وقدره غيب جنك لكم يعلم ولا يدرك ويمكن على قلبه تقدمه عالم تنسيه إلى أن يرتضى ملك مقامه يبقى في جنته قلبه jaam xamu xaybu li mooy jaam boo xam ne yàlla ko tànn ñu def ko xaybu mu ngi am yonent te ñu war naka moom bu wóor yëpp ko ba mu xaram rek yëpp ko ba mu jàppale rek yëpp ko ba mu def ñu bari ya day ci kanam moom xam ci yaa ci dana am rafetam malaaka yi ñu wax ko rek koo xam ne ñu jaam la boo xam ne moo ko yëndi ba ñu def ko xaybu kooku moom yàlla dana ko awale ci yoon woo xam ne mu ngi ko boolee malaaka yoo xam ne ñoo koy wax bët li yaarama yit na mu xam am na ko digal bi kadam dafa joxoon na yéen ala sabab bi yéen ci borom seen waaata dem ndéen yumaara ba yéen la nekk fa ñoom waa faata tamit ku nekk yéen ñëpp rek ak dem ci bindéef